confinement bi mooy dañuy ñaax bépp sëriñu daara nga téye nga téye say taalibe ca biir ca biir daara ja comme ni ko mairie Saly defee ñuy ñaan yeneen mairie yi ñu def ko ndax ku di ne téyeel ay xale ci biir daara ja di leen jox ñu lekk di nga leen jox la ñuy fóotee ak la ñuy sangoo kon nag ku nekk boo defee comme mairie Saly ragal naa ne imaam yi daañu ñoom it jàpp si tey xale yi ndax xale yi ñu ngeeg seeni njaboot bu xale taalibe amee feebar bi walla ko imaam sa imaam lay gën a métti ndax ku nekk xam na ne troisième âge yi mel ni man la gën a sonal kon nag ñu ngi leen di ñaax ñu téye xale yi ci daara yi su weesoo loolu kër borom kër bu nekk pour aar sa njaboot nga xalaat daara yi bu ku nekk jëlee bool yekk yóbbu ca daara ba ca sa koñ xale yi duñu soxla génn bu dem di uti ji lu ñuy lekk may ñaax ñëpp parce que xeex bi xeexu ñëpp la képp kuy soor boo yokkee tuuti ci sa sóor nga yekk bool yóbbu keneen yóbbu bool keneen yóbbu bool xale yi duñu soxla génn mm. kon nag ñuy ñaan yal na fi yàlla jële feebar bi ku amul soxla bu jàmp toogal ca sa biir kër koo namm woo ko téléphone téléphone yaa ngi fi ñu toog fexe fii ak ay semaine feebar bi jeex fi ku nekk dem ci say soxla ak sa yitte